<laughs> même boo ko coppitee yóbbu. Mm. foo koy àttee. Mm. da nga koy àtte ci asamaan si. waay boo àttee da koy tëj. waay léegi boo ko tëjee. fan nga koy tëj mais. ak les conséquence konoon du ñu yegg fii suivre. konoon ñu yegg fii laa la wax. du ñu egg ci élection. wallaahi du ñu yegg. kon kon arme bi jël nañ comme. konoon du ñu yegg fii force vont mm-hmm. konoon Macky Sall sa nekkul Maroc. konoon Macky Sall nekkul Maroc. comme ministre yi ba. fii nekkoon ancien ministre. Mm-hmm. kenn du génn réew mi mais ñu bëri également yaa ngi xalaat kenn leen di bàyyi. loolu parce que mais ba Bassirou Gueye sa nomination à l'OFNAC euh, durée lay nekk wala président mën na ko mën na ko mën na ko jëlee foofu. je pense que c'est pour cinq ans. la nomination mais. mais xam nga Serigne Bassirou Gueye Sénégal loi modification OFNAC dafa renforcer les pouvoirs de l'OFNAC. Mhm. Macky Sall def en deux mille vingt trois les pouvoirs de l'OFNAC. léegi président de l'OFNAC mun am na prérogative def li procureur mun def. nekk police. waaw maanaam mu classé dossier cent suite alors que l'OFNAC bokkul ci justice. <laughs> OFNAC bokkul ci justice de. waay c'est une administration indépendante. boo xamante ni moom dépendre ci justice. Mm-hmm. mais le président de l'OFNAC am na possibilité bu dégloo cuun. même bu fekkente ni bugg na ma protéger mu xam ne man def naa lu yoon tere. Mhm. am na possibilité mu classer dossier bi. sans suite léegi bu ko classer sans suite kon procureur du si jot. déedéet loolu la mooy lu gën moo bokk na ci pouvoir yu bees yi léegi nag pour nga def bale bi nga soxla jot ñi nekk fële. de mhm. wóoru la ne def nañ leen dossier sans suite. foo nga éjecté ko mooy siège bi foo mu tëb li bu tëbee nga indi keneen koo xamante ni su boobaa moom. même moom même si y a possibilité mu def classe sans mm. suite puisque justice moo war a décider. parce que mm. justice moo war a décider day. day am pas une waaw léegi nag les procureurs de Bassirou Guèye ci pouvoir yi bees yi président de nag dafa am pouvoir mu classer un dossier sans suite. kon man nga di foofu itam. ah day deñ euh, changement am fa. Ah, day deñ day deñ sëriñ bi yow yow agropole le gars de Sénégal. Mm-hmm. son mandat c' était 5 ans. waay 2027 la waroon jeex xaw ma 29. 28 ko jëlee waay waaw mais lu tax ñu jëlee ko fa. parce que li ñu doon xaar mu def ko defu ko. defu ko alors ko loolu ci clause yi mën na tax ñu jëlee la fi. d' mais mais ci cas bi circonstance bi ñu nekk bu fekkee nag la sëñ Bassirou Gueye mi ngi def li liñ ko sant publier na euh, rapport yi parce que gis nañ sax mu ne le président de la République m'a ordonné de publier les rapports. léegi les rap il lui a ordonné de et les rapports qu'il a avant l'arrivée du président de la République c'est-à-dire que rapport OFNAC yu ñu jot matul dix OFNAC ay centaines la jot la yore centaine de rapport waaw yoo xam ne dañ ko war a fësal mais Nafi Ngom Keïta kay moo la wax ni mhm. jox ah. naa joxe naa ordre poursuite ordre boobu moo nekkoon procureur de la République Serigne Bassirou Gueye maanaam moom mhm. daa toog fële de justice fële Dakar ñu ne ko diw ak diw ak diw topp ko nga jógee foofu noonu dem présidence. Mhm. ñu jële le président yóbbu la OFNAC. léegi nga doom ki la doon ki doon na ci dossier. Mhm. mu envoyé toppal ma diw léegi yow yaa fa topp. waaw léegi bu fekkente ne yow bëggoon topp diw léegi yow yaay waxaat yow yaay jël dossier te jébbali ko. pour ñu toppaate. Mhm. est-ce kon di nga di nga di nga ko yóbbu pour ñu toppale. d'accord mën nañu jàpp foofu ne Macky Sall dafa préparé ginnaaw ah, avant muy dem. Macky foowul de. ah oui Macky dafa foo yéen da ngeen comprendre Macky foowul. non non préparer ses gardes xaw ma fan lay mujjee. Mhm. waaye dafa préparer lépp da nga da jàpp ne maa xam mbay. Mhm. maa xam mbay la maa xam munoo maa xam bële yaa xam. yaa xam mbay. Euh, euh, ex DG de de waaw jàpp ne bu mu di wax ne président. Mhm. question boo xamante ni yaa ngi euh, pendant une minute a pare. cest à lu mu bëggoon a wax bëgg ko wax directement. mooy que le président de la république. est ne yow. yaa ngi toog fii est-ce que boo fi jógee. est-ce que duñ ñu tëj. loolu la bëggoon wax. léegi mu ne est-ce que defar nga sorte que ñu ngi àndale te bu muy métti ñoo ak ñoom yéen a àndoon. Mhm. est-ce que ñoom buñ tëddee mën nañ nelaw. Ah. lu mu bëgg tekki rek mooy est-ce que boo fi jógee du ñuy jàpp tëj ñu. waaw mhm. ah, léegi boo deful dara ñu lay jàppee tëj la. ah nag loolu nga xamante ne loolu la président wax président nag par exemple. comme lu ñu defee escorte xam nga agent de sécurité dañoo aay. Mhm. bu ñu lay sécuriser maanaam da ngay avancer ñu lay wetu maanaam même boo doon daw sax dañ lay topp. maanaam kenn benn danger du la jege. Macky Sall noonu la def mooy dafay préparer fii parquet la commencé. Mhm. Serigne Bassirou Guèye da koo jëlee ci affaire Adji Sarr bi. Mhm. kooku def rôle am ba mu baax. mu yóbbu ko palais mu yóbbu ko palais. jëlee ko palais yóbbu ko. yóbbu ko OFNAC mu jël Amadou juuf mhm. mu nekk defar ba mu naayis. ba mu baax fa juge maa xam jàllo de. ak du Seck. parce que Mamadou Seck événement 2021 il vingt 2020 23 bi jot. ci ci boobu. muy mandat de dépôt rek. mandat de dépôt rek ah mais. le principe des mandats de dépôt. mais voilà c'est le roi man j'ai eu problème un jour dama toog ma ne xaaral ma xool turu Mamadou Seck ci internet. Mm-hmm. ma gis benn photo. ok ma ne kii mooy Mamadou Seck ok mais Mamadou Seck tous les jeunes arrêtés moom mooy def mandat de dépôt. ma ne kon Mamadou Seck kon moom xanaa bigi mu war a bëri bigi moom xanaa day bind ba mu jeex. chaque jour mandat de dépôt. biroom day fees. te puis ni mu koy defee dafay daf lay woon carrément ne lii am na am na leen lu nekk ci ginnaaw. lu dul lu dul justice. te te te te te Mamadou Seck c'est le plus célèbre. man mosuma gis benn juge deuxième cabinet bu siwee nii. Mhm. Mamadou Seck Mamadou Seck. mosuma gis juge d'instruction bu siwee nii. Maham xam Maham Diallo mosuma gis également procureur. bu siwee nii bu gën a mën a expliquer loo xamante ne du droit mooy Abdou Karim Diop. sëriñ bi mooy contumace su ma koy déglu sama xol day bon. Mhm. mais est-ce xam nga ne Ousmane Sonko eh, moom pour moom Abdou Karim Diop. Mhm. pour moom ba léegi Ousmane Sonko contumace la est-ce que xam nga loolu. contumace la waaw. ma xool bu ñu jàppee Ousmane Sonko daf ne dama bëgg askan bi xam lu ñu jàppee Ousmane Sonko ñu ñu boole ci vol de téléphone. Mhm. ne comme prétexte. en réalité il est poursuivi pour appel à l'insurrection ba mu lim ko ba mu nekk huit chefs d'accusation mhm. mu ne lii cependant amul benn rapport ak dossier bi tax ñu tëj ko pendant deux ans ah, oui. par contumace néanmoins il est toujours contumax léegi bi depuis jour boobu waxaatu ci donc il est contumace donc il est contumace donc la signature du mm. procureur si Ousmane Sonko c'est un contumace toujours ah loolu loolu la ñu wax mais justement avant ñuy jàll ci Moussa Yoro Moussa Yoro <laughs> Diallo Moussa Yoro Diallo avant ñuy jàll ci moom xari <laughs> euh, comme que chamboulement am na ci euh, magistrature bi ci mm. justice bi am na itam xam naa ñu ñëw ci pôle judiciaire bi am ci ñëw ci kanam mm. incha allah mais comme que chamboulement am na est-ce que mën nañu yi donte sax euh, li nga xam ni moo di am euh, amnistie bi euh, am na ci yenn ci ay dossier mhm. dossier Adji Raby Sarr ak ses morts dossier Adji Raby mën na jóg mais du jóg léegi pourquoi mën naa la wax dossier yu jóg te fan yi di man lu tax mu yéex man ci information bi ma amoon mhm. mooy am na ku ma waxoon ne les premières convocations dina ñëw ci mois d'août. mois d'août bii nii. waaw 2024. waaw ci dossier Adji Sarr bi. no dossier ci mbirum. ci rapport yi waaw rapport les rapports. parce que Adji Sarr dossier bi dafa bokk ci euh, amnistie bi. Mhm. Euh, bon excusez-moi je pense. waaw ci dafa bokk ci amnistie bi ci la bokk parce que moo jur lii yëpp. Mhm. moo siiwal juste Mamadou Seck. Mhm. moo siiwal xam Diallo. moo siiwal Bassirou Guèye am na ñu ko xamoon waaye ñu bëri xamuñu ko woon. moom moo siiwal Amadou Diouf. moo waree sax les quarants des procureurs procureur bu lay expliquer waaye doo comprendre mhm. moom moo wone également que ne am na ñu nekk ci administration danoo far mhm. ñu bëggoon a def dëkk ñu dàq leen am ah. la cas de capitaine Touré ñu dàq leen waay mooy kooku mooy gën mooy lu gën a kooku moo gën a ne mooy kooku moo gën a mën a moom moo moom la moom moom ngeen la ñuy gis mhm. mais buñ la man démb rek démb vingt dama doon wax def ak émission benn femme bu ma du ma tudd si turam docteur Gaylo seen seen daam su kay mën naa ko citer Macky Sall da ko recevoir c'est fis une fiscaliste kooku bu sénégalais ñu bëri fonctionnaire bu meloon ni moom mhm. mais réew day dox la dame dafa calé mhm. compétente dëggu impartial et pourtant mu ngi si jamaay président mais bu àndul ci bu àndul décision yu nguur gi jël mhm. day taxaw dénoncer que ne ànduma si lii kooku moom Macky Sall bu bu ko bu mu ko recevoir palais présidentiel. Mhm. da ko wax kaay nga ànd ak man. kooku ne ko man duma ànd ak yow parce que li ngay doxalee man du ma doxalee noonu li nga gëm ci politique gëmuma ko donc du ma ànd ak yow. Mhm. léegi moom nee na mu ngi doon liggéey benn ministère su ma si je me trompe xam nga Mamadou Moustapha Diop. bu mhm. nekk Louga. dafa dem ñu indi ko problème joxatuñu poste bu mu nekkoon ñu jëlee ko fa. alors que c'était un fonctionnaire. léegi nga amoon di décider. ñu ne léegi dootoo décider léegi toogal nga nekk simple fonctionnaire donc loolu de sénégalais victimes même yow da ngaa victime Abdou Khadre mhm. yow problème Adji Sarr bi vic doo ci victime. ah bu mag. man victime laa ci. ñi dëkkoon cité kër góor gi. Mhm. les voisins Ousmane Sonko. victime. Mhm. Ousmane Sonko dafa war a xëy. donte moom dañ ko imposer loolu mu xëy rek chaque jour pas chaque chaque chaque chaque euh, tabaski wala korité mais bu xëyee chaque dimanche rek mën na jël oto bi rek di tourner maa ngi jégul de. waaw naa leen di daaw de baala waaw. <laughs> gis nañ ko sax ci def sax ci tabaski xaw ma korite <laughs> mu dem ci gars leen baala. xam mu baal na leen quoi. waaw parce que. Hmm. lu ñu de barricade bi. donte moom du moom moo ko bëgg. mais jëmmam moo tax ñu def ko ko. Hmm. ñu def ko waa koñ bi. man dama doon def waa koñ bi dama doon def exprès. su ma wàccee. Hmm. ma jaar cité góorgóor bi. pour voir waaw constater la situation pour xool. tase naa fa ñaari yoon Girassi. Moustapha Girassi waaw mu fay dem. mu fay dem ñaari yoon. ñaari yoon ñu bloqué ko. dix-huit heures beneen bi vingt heures mm-hmm. ma taseeg moom et dafa ma leer ne da doon xool lu si Ousmane Sonko nekkee mm-hmm. moo tax j'ai compris la proximité entre ah soo koy kii mm-hmm. mais au-delà des médias li nga xam ne ñaar ñi am la ñuy seq donc li ma bëgg mooy jamono ji am na journal bi bindoon xaw ma nouvelle convocation arrestation en vue ñu ngi defar rëbës ñu ngi defar xam ñu ngi peinture loolu yëpp débat mais lu leer mooy tey la lan tey la euh, vendredi lu leer leer mooy mbir mi moom li njëkka leer laa lay wax mm, mooy lan rapport covid 19 mais rapport bi. <laughs> ah loolu kay ñiy leeral ñi ngi seetaan. mais rapport bi commencé woon na dem tribunal ak euh, le dossier de diffamation moo wax la benn affaire